Euh, di jaajëfal bu baax a baax itam waari ci ñoom ñu nekk ci xarale gi en tout cas am ngeen jàmm ñu ngi leen koy ñaanal te di ko sàkku ci yéen ñu doorati suñu émission yi ñuy leen di jox saa su ne euh, bu waxtu wi jotee ngir gën leen a xam lekk euh, réew mi tolluwaay wi réew mi nag bëri na actualité yu fi yu fi daal di wàcc ndaxte dégg nañ coow yu bëri la ca gën a fës nag mooy wàllu yoon xam naa ne dinañ fa gën a joxoñ baaraamu tuuma ci ci biir waxtaan wi Euh, ànd ca gan gi ndax gan gi moo ko nar def man joxoñu mu baaraamu tuuma mais moom xam naa ne euh, dina ci joxoñ baaraamu tuuma waaye daal lépp lépp lépp day wëlbatiku rek ci yéen itam ngeen participer ci émission bi poser leen seeni question bu fekkee yéen ak ñuy teewlu euh, ñun tamit gan gi dina ci indi ay ay ay leeral ma ànd ceeg yéen gan gi du kenn ku dul xàmmee ngeen ko Serigne Modou Asta Mbacké Euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa baax euh, jigi di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp ci chaîne bi di euh, Sénégal 7 di nuyu mboolem ñi nga xam ne itam ñu ngi toppee fii si biir réew mi ak bitim réew. moom tamit muy ku ñuy topp. waaye waxoon nga ma ne ma bokkoo Pastef. ma bàyyi di wax ma bokkuma Pastef. ah bokkuma Pastef. leader d'opinion. waaw Euh, di ko xamante ne man ëpp ci man daal wax kat xalaat daal sama xalaat daal la. na daal ma bàyyi wax loolu waaw euh, mais bi waxtaan bi door na de ñun de maag yow moom nii la ñuy waxtaanee saa su ne ngir jéem a euh, xool comme ni ko tubaab di waxee passer au peigne fin actualité bi su ko defee ñi ñuy seetaan jëriñu ci ñun itam ñu jàng ci waaye nag laataa ñuy door rek lépp lu dëng rek ñu xam ne ay doomi aadama yu toog la fas yéene waxtaan waaye lépp lu jub itam. Eh, ñoo xam ne yàlla suñu borom la moo ci fas yéene jàpp ba lépp yem eh, cheikh bi man fi ma koy dooree mooy waxtaan bi eh, mooy kii di Cheikh Bara Ndiaye saa si tembe di àjjuma mu ngi ci kanamu juge du deuxième cabinet bi nga xam moom moo géré dossier moom Cheikh Bara Ndiaye nag démb la waroon a dajeek ñi nga xam te ne nii moom mooy magistrat instructeur bi waaye nag dañ koo daal di dàqandi ba tey jii nii nga xamante ne nii la ko waral du lenn loolu dañu dañu jot ci ay xibaar ne dafa am malaise fi nga xamante ne nii moom mooy ca tribunal bu Ndakaaru euh, euh, jot nga xibaar be waaw jot naa xibaar bi sëñ Baara moom euh, bi ma ko umpalee rek mooy keroog bis bi mu gaa yi arrêté ay bis bu moom mosuma umpale dara te loolu maanaam bokk muñ bokk combat la surtout combat principe boo xam ni lu waaye mën a wax ci kuy son bu mu rëy doon di wax sa xalaat nit ñi di la déglu bu fekkee ne nit ñi egg nañ ci di ko def loolu grâce à Cheikh Bara a Cheikh Bara loolu moom moo ko jëkk a rempli fii Sénégal te loolu du lu yàgg boo jëkk a fexe ba nit ba ba jàpp ne nit ku jaar ci daar ji jàngoo lu dul daara lu dul njàngum daara ay tubaab bu ñu la ko làkkee doo ngir sax ñàkk koo dégg ba gëm ne sax war ngaa mën a toog ak comme ni ñu ko gëmalee woon ñoo xam ne ay doctorat lañ ñoo xam ne ay licencié lañ ñoo xam ne ay ñu ko mën a ay ay maîtrisard lañ et cetera nga mën a toog di wax ak te doo benn problème même ñoom itam problème yi ñu amoon ci ñoom waruñoo toog loolu lépp dindi ba set wecc loolu Cheikh Bara ko moo xew loolu tey buñ buñ ko jàpp ko jàppee ci situation yi ñu tam nekk nag li ñuy wax détention arbitraire boo xam ñëpp xam nañ ne tegul ci yoon dangaa nekk singale la ah, la bu bëri wér parce que foo ko teg ah, mooy bu fekkoon ne Cheikh Bara dafa taxaw wax loo xam ne sax lu yoon di aaya bi ñun ñëpp ñu mën teg suñu baaram lu yoon koy aaya yoon dafa nanguwut boo ko booy teg nit ci yoon ngay jaar nga jaar fa soob nga teg ko ci yoon yoon nanguwut loolu yoon day tax day bañ hmm. yoon li mu accepté ci nit kii def lu dul yoon boo koy jaar ci yoon am na yoon woñ xal ne ku nit ku bëgg yoon yoon li war jaar pour jaar la ko ci nga am na ko xam tey su defee lu dul yoon nga jox ko convocation ñëwut nga jox ko et cetera yëpp ñëwut yoon maye na nga dem jëli ko yow yow ci jëli bi nga toll mais ci biir li mu wax c'est-à-dire ci biir li mu wax avant ma koy wax. man loolu lépp wax na ma ko ne ma suba danaa wax na nga ma ba ma laaj ko man wax na ma ko loolu laal man wax na ma loolu. ba ma laaj ko source li nga bëgg a foo ko te li li nga wax lépp rek man li ma ci gis mooy apaiser la situation pour réew mi na ci jàmm ñëpp na ci jàmm. te loolu te loolu. moo ne kilifa gi dafa jàpp ne contraire bi la. waaw ah, ki dafa nekk di xambu taal bi. kilifa gi kilifa gi. mooy yoon quoi la ñu bëgg a. très bien xam nga yoon moom xam xam ñoom xam nañ xàmme ñoom fii mim réew. jàppuñu nit en tant que dafa def waaye bawuñu nit en tant que daa ñàkk def hmm. mim réew moom dañu lay xool bëgg laa jàpp-jàpp la nga jàpp ne dañ ko singale kon ah dañ ko singale parce que lu tax ma ne dañ ko singale mooy nit taxaw na ne nañu rey Ousmane Sonko nañu rey diw loolu loolu yoon terewul loolu yoon dafa tere waaye léegi est-ce que nit bi waxu ko ba dem doxee soxla ah état moom ku faatu ci réew te xamul lu ko rey kan moo gàlloo sasoo maanaam leeral lan ma waral lan ma waral diw dee te am na koo xam ne ci biiru ay ay militaire wala ay gendarme ñu fi deewoon wala ay service renseignement généraux ñu fay deewoon kooku yi lam ca wax xas ñëw moom première source la pour état war a mën a jaar ci foofu ngir kapp xam tudd ko rek ah, ah, ah, loolu tudd waaye Souleymane Camara nga bëgg waaye xam nga suñu Saliou lu ñëpp ko xam boo ci waxee hmm. lu kenn xam ne man hmm. xam ne diw laay waxal boo ko ajuut diw hmm. comprendre kooku pour man man bu fekkoon man enquête boobu man maa ko yow li nga wax yan source nga nga ca am ngir man ma mën a jàpp ki ki nga xam ne moom moo rey ñun wala bu fekkee ñi dañoo dee dee naturel man na maa jaar na maa jaar fi ngir xam ne ñi bu ñu leen rayee dañ leen a rey am nañu toog fi et cetera wax ne jëmmi jiw suñ ko rayee ñoom am jàmm am na ku toog sax wax ne fii famille nangam tuuti nañ ci réew mi xam nga tuuti nañ ci réew famille nangam famille jaas tuuti nañ ci réew mi nañu leen ray buñ laa ne taal réew mi nañu leen ray benn mu jeex amul ko wax loolu ah? yooyu yëpp ñuy wax amul lu ci si amul lu da koy aaye est wax ñu wax da nga koy comparé ak ak li Cheikh Bara wax maanaam lan moo ci gën a nekk lu garaaw comparaison boobu ngay def lu ci gën a nekk lu garaaw léegi ndax li fekk sax Bara fekk na la tax nag Cheikh Bara li mu wax li fekk ko ci mooy Cheikh Bara li muy wax dafa arrangé wu borom réew mi comprendre moom dañoo ànd borom réew mi day mel ni fii daal ànd ak ànd ak moom ku ko def mhm. maanaam am nga ay garantie yu wér ci ne def lu dul yoon moom taxu dem prison mhm. waaye ko andul kenn gënu laa ñàkk ay garantie kenn gënu laa ñàkk sécurité te que ñaata yu woon la wax ñoom waa pouvoir bi ne na Sonko wuy ci waxuñ loolu parce que yoon boo da ngaa war a wuy hmm? ci mhm. te ñun patriote yi wax boobu ñun d'accord uñu ci ñenn ci patriote yi nga xam ne des nañu am sax savoir vivre attaqué nañ ko ko ci lu c'est comprendre man li nga ko toppee bëri na bëri boo xamante ne ni ci ñoom li ñu wax ba ci njëkk mooy nee nañu euh, association de malfaiteurs euh, préva plutôt dañ ne euh, prévention d'association de malfaiteurs terroristes bi ñu noppi ñu ne appel à l'insurrection beneen bi ñu ne appel à la violence et à la haine atteinte également à la surete de l'État détention de substances explosive en vue d'une utilisation sur des biens publics ou intéressant la chose publique et en vue également d'occasionner des troubles politiques graves yi ci des bari na sax waaye foofu yooyu laa yor. Ah, xam nga ñuy wax ni ñoom xamuñ Cheikh capacité bi def lii ñu la xam mooy toog këram gay ku ñëw mu xam mu jaral xam-xamam bi ko yàlla jox di faj ku di faj ku wéradi di dimbali ku ñàkk am xalaat ak réew mi di ko wax lii mooy ay position ku ko xamoo ku ko xamul. cocktail molotov loolu moom man man man man man man xam naa ne yegoon naa ne lii danañ ko ko topp lu tax li tax li tax li tax mooy lii damaa xam xam nga situation yooyu lañ topp képp ku jàpp problème bi daañu ko tuumaal amul werante cocktail jege hmm? da doon def loo Cheikh Bara man bi ñu ko jàppee bu fi ma doon wax ak yow lii ñuy lii ñuy wër ne duñ ko gis ci moom hmm. amul benn suus bu ñuy dem ba ba gis ni ci moom Cheikh Bara du ñooñu dégg nga te man ñii di wax ak yow Cheikh Bara man lii bu ma xamoon ne man jagal dama koo jege bu nekk woon lii. ah loolu tax kay ñu. Ah, bu nekk woon lii bu nekk woon lii ba bam dañuy ba bam ci génn yàgg na. Mm-hmm. ah oui parce parce que lii nii moom man sax baar li ma wax sax man personnellement. Mm-hmm. dafa wuuteeg sax lii ñu koy wax man damaa dem këram seetu ko. ba ma demee man ak moom ak yàlla ak nit ñi toog ci saal mbooloo mu dul jeex de. billahi lesi laa ilaha illa huwa sax baar ni ma. Mm-hmm. yow day seetaan naa la ngay wax di contre dialogue dialogue bi. xam nga fii laa toog ci sa kanam. waaw waaw di contre dialogue bi. adduna yëpp ni ma dégg. man ma dialogue bi yow ku la fekk nga di ma contre xaw ma lu mu la war a wax ma ne ko ah manuma yow ñun ay kilifa yu diina la ñoo xam ne ñun bu nit juddoo nit ñi nañu kaay na tudd ko da ngaa jàpp ne en tant que sëñ moom du Mbàkke raxma déet dañoo bëgg doom jooju bu màggee barke mm-hmm. moo tax ñuy woo mm-hmm. en tant que nit bu faatoo ñu ne ñoo leen jullee ko dañoo bëgg yàlla yërëm ko moo tax ñuy woo mm-hmm. dinañ ñaanal leen nit ñi bu ñu amee seen problème yi say am nañ ay mag am ay rakk am ay ndey am ay baay ñun ñëpp lañ leen fi rek ñëw lañu ñëw ngir ñu lijjanti ñu leen ko parce que jàpp nañ ñun am nañ posture bu ñu màñ mën ko lijjanti bu ñu ko lijjanti ne par nit ñi du ñu leen xamal ne ñoom am nañ problème say léegi lu mel noonu nag kon kon ñun saa kon ñun saa su njëriñam nit ñi teewoo ñun la ñuy woo nit ki bu ñu nee ci jax-jax ñun la ñuy woo buñu bëggee jàmm itam te ñàkk ñun la ñuy woo mhm. sëñ Modou ñu dem ba taxaw ci situation yow nga ne bëggoo jaraw man loolu sa biir jaax ne ma nag am na benn plateau télévision xaw ma Sénégal set gi dalal naa ko mhm. Mhm. yow laa doon waxal yow laa doon gaaruwaale sa tur dong laa tudd man ak moom yàlla de man ko xam naa ko wallaay la ma ne ma yow laa doon gaaruwaale Sénégal set yow laa ko doon gaaruwaale mu ne lii man maa ko wax ci Sénégal set yow laa doon gaaruwaale ma ne ko sa baax man xam naa ne bien sûr man ngay waxal waaye man aw ma problème mu nga nga wuuteeg man xalaat parce que loolu d'accord maa ngi man xam nga mënul ci nit maa moom ñu wuute ay xol loolu ñaare bëgguma ko ci kenn mais bëgg naa lépp parce que wuutee xol loolu mooy dig noono wuutee xalaat nag mooy bëgg defar adduna nii laa ko gisee kii na nii laa ko gisee jàpp na sa gis-gis daa gën a xóot gis-gisu kii bu gis-gis sottee bu sama gis-gis sottee li nga gis ne ko loolu mooy loolu tax wuutee gis-gis baax waaye man damaa gisul affaire affaire du jàllu ne man danaa ko waxte danaa ko défendre te nag lu mu laaj nii ne ma ko waxee de ci jàkkaarloo yow ci contre carré la ci dëggal jalak wéral ko ba Sonko dem toog ak Macky Sall moom ah, moom kat wax de moom ni muy waxee kat dafa mel dafa contre déedéet déedéet contre jalak loolu wax na ko wax na ko plateau yi jalak bi wax na ne da cee ànd loolu dégg na ko ci